ministre ba woon di Mahammed Boun Abdallah Dionne ak premier ministre bi fi di Amadou Ba ñoom ñaar seeni jëmm ngi ci yéene kay yu bari ñu xëyandool muy le quotidien témoigne journal Life ak L'As doore ak le quotidien mi ñu wax ne defante ba door na ci diggante Mahammed Boun Abdallah Dionne ak Amadou Ba am na juróomi délégué régional yu newoon ci Mahammed Boun Abdallah Dionne waa pouvoir bi këf nañu leen kàddu yi Mahammed Boun Abdallah Dionne ci xët mu njëkk yéene la ak Amadou Ba c'est la guerre totale li ñu ne defam ay délégué régional yu bun jonn yu Amadou Ba débauché bun Abdoulaye Jonn mi ngi koy weddi ci mu njëkk journal L'Info laa si mel ne ku naan mi ngi weddi lu am ndax muy Mouhamed bun Abdoulaye Jonn di Mame Boye Diao Amadou Ba def na leen ko ndax am na ñu ne woon ci ñoom ñoo xam ne Amadou Ba nangu na leen suur soine ko dëggit def na ko bun Abdoulaye Jonn def na ko Mame Boye Diao waaye def na ko kii di Aly Ngouille Ndiaye conseil régional yu newoon ci Mahammed Boun Abdallah Dionne yu dem ànd ji ak Amadou Ba Habib Niang bu kees moo njëkk yëf yi dem fekk ji Amadou Ba bu yóbbaale parrainage yi mu dajale loon Boun Abdallah Dionne yëf yi mu ngi ñuy ci kër Mame Boye Diao fa la njëkke ne moom dem fekki Amadou Ba kenn ci ñoom di Adama Fall mi ngi ci xët bu coalition Diao 2024 ngi leeral ci l'Observateur li tax mu jóge ci Mame Boye Diao dem ci Amadou Ba ba yóbbaale parrainage mooy def Mame Boye Diao lu ko mitti te def na ko ko ndax li ko Mame Boye Diao def yëfi laas la te dinañu ko topp ci yoon ñu topp yoonu politique bi ba tey dem ci journal lii quotidien mi xëy bind ci xëtamu njëkk ne ministre Doudou Ka proclamé na boppam directeur de campagne bu Amadou Ba mouvement bii di dogu dajaleel nañu candidat Benno Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba 202 ba teg ci taabal ji journal bi teg ci di ñu xamal ne lu jëm ci collecté parrainage ngir waxtaan waxtaan wu mu def ak fiscaliste bi di Cheikh Ndiaye tuddee waxtaanoo antidote ca waxtaanoo moom Cheikh Ndiaye di inspecteur du trésor doo nit responsable politique ca lagem dellu na ci njariñ li nga xam ne décret bu yees bi jëm ci wàllu régime financier des collectivités territoriales am na ko nay net stratégie endettement ak gestion dette yi sunum réew di Sénégal ma nga ca yoon wu baax wa li mu gis ne lu baax la ba tax mu wax ko nee na Amadou Ba dal nam xel ndax bu fi toogee dana mën a wéel yeggale bu baax a baax sànc yu mag yi fi président Macky Sall tàmbali ki war a wax boo waxul lu yàqu yaa ko seetlu ci opposition bi ci réew mi ndax mi ngi ñuy wax ne yi fi xew bari mu di ay coppite yu am ca Sénat commission électorale nationale autonome rapport yu corps de contrôle yi ci réew mi def ñu koy bloqué ak règlement intérieur assemblée nationale bi ñuy caxat-caxate yooyee yëpp journal Sud Quotidien ne nañu xew na fi te dégguñu opposition bi benn yoon mu wax ci moo waral ba Sud Quotidien jàppee seen noppi gi ak silence coupable silence gi jaaxal l'observateur ba tax di ko jàngat ak càmbar mooy gi nga xam ne ñi fara ci camp la ñu nekk jamono ji nit yu dëkkee ŋàññ ak di critiquer régime ñu gis mu taxaw jël défense Pastef di Ousmane Sonko ak i gaayam anki dina kay mi ngi ñuy wax ne ci manœuvre di nasaki nocc ca la nekk gàt sa gàt sa giñ doon woote dellu nañ ca gannaaw léegi indi nañu weneen doxin wu ñu am yaakaar ne dana tax bali te ngeen ci ñoom mën a yolom sursoi nañu wax ji du lool wax ji mooy Ousmane Sonko ak li ñu doon wax ci moom muy dafa feebar dafa sonn ma ngay crise demoon ci sax banaan mi ngi dans le coma moom Ousmane ñu doon waxal loolee a jot loolee nag jaaxal nañu bari ñu ci xibaar bi ci